Walfadjri rajo bi jaamu seeni soxla li ci yéeni kay ak Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy wàllu diplomatie di ñu dégtal diggante Sénégal ak France jëflante gi faw ñu xoolaat ko mu gën a ñoŋ fexe ba Sénégal gis boppam ci googule jëflante doon na lu soxal njiital Pastef Ousmane Sonko mi dalal euh, Jean-Luc Mélenchon njiital France soumise euh, ci googule ndaje ci université Cheikh Anta Diop la doon ame mu ngi ci yéen kabi di Walf Quotidien yor yor gi ne li am ba des mooy euh, bëgg nañu Afrique gën a moom boppam ci wàllu jëf jëflante gi Sénégal yi tamit gis boppam ci jëflanteem digganteem ak réewum France ak yeneen réew yi doon lu mu fësal démb moom Ousmane Sonko njiital euh, Pastef yéen a di réew mi quotidien université Cheikh Anta Diop goge fa la Jean-Luc Mélenchon newoon Ousmane Sonko moo ko dalal bokk na ci sax euh, njiital Pastef yekk na lu mel ne xeme Emmanuel euh, Macron mu ngi ci yéen a di mi quotidien yéen a di 24 heures yekk na lu mel xeme Emmanuel Macron moom njiital Pastef Pastef mi mu gis ne Emmanuel Macron ci jamono yu tar euh, nguurug Macky Sall doon fitnaal Ousmane Sonko ak partem euh, réewum France ak nam ca taxawee rawatina njiitu réewum France euh, Emmanuel Macron moom ne la Ousmane Sonko gis ne taxawaay ga daanaka dara rafetu ca mu ngi ci yéen a bi di 24 heures ci biir yéen a bi Thierno Bocoum ma ngay dànkaafu régime bi fi ne nguur gu bees gi nañ def ndànk te wàcce seen bopp te xam ne yëf yi du yombee noonu ndax nguur la ca ne ak la ngay Abdoulaye Boy dagaan baatu askan wi yéen a bi di euh, le quotidien dañu dégtal ne nganub euh, Emmanuel euh, nganub Mélenchon fii ci réew réewum Sénégal jot na amal promotion mbirum góor jigéen ca université ba yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen a bi di turbine mel ni ku koy déggal ci wàllub mbirum góor jigéen ci réew mi Ousmane Sonko moom dalal na Mélenchon xamal ko ne Sénégal dañ fi xeex mbirum góor jigéen waaye nag terewul Jean Malick Mélenchon euh, mel na ni kuy dooleel euh, mbirum góor jigéen ndax mu ngi fàttali ne mooy député ngi njëkk a euh, déposé texte ngir fexe ba daganal say diggante ñaar ci ay góor jigéen ci réewum France ak feneen ak feneen mu ngi ci yéen a kabidi turbine yéen a kabidi les école conférence googe diggante Jean-Luc Mélenchon ak njiital Pastef Ousmane Sonko daanaka am na revanche ci kaw France moom njiital Pastef ñaawlu na doxalinu Emmanuel Macron ci digganteem ak Euh, Sénégal ci élection présidentielle yi ñu jógee rawatina laata élection yeeg fitna politique yi fi woon Ousmane Sonko fàttali ne du ñu bàyyi mukk seen naataango yu euh, euh, maanaam Sahel bi daañu wéy di jëflanteeg ñoom yéen a kaabidi les ko xee lu yéeme plainte goo xamante ne yóbbee nañ ko yóbbu nañ ko teg ko ci ndoddu Pape Sané di taskatu xibaar ci groupe Walfadjri ak maître Cheikh Niass mi jiite groupe Walfadjri Abdoulaye Sylla njiital Ecotra moo leen ci yoon la sabab mbir ya nag mooy laaf goo xamante ne Pape Sané def na ko ci Walf euh, net euh, doon addu ci dossier gu dox ci diggante Ecotra bu Abdoulaye Sylla te mu toll ci euh, téeméeri milliards ak ñeent fukk marché ga mu am ca Diamniadio te dëppoowul ak yoon ci atum 2016 loolee nag la patron bu Ecotra Abdoulaye Sylla gis ne Eh, dara amu ca ba tax na mu kalaame eh, Pape Sané ak Cheikh Niass fu mbaxana doone benn yéen kaabi di eh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dektal plan gi nga xamante moom la ngur gi di nas ci jamono ji ngir xeex wàllu mbënd mi ndajeb conseil interministériel jot nañ ko ci amal ca Diamniadio ñaar fukki poñ ak ñaar yoo xamante ne jàpp nañ ko nguur gi ne ca tënko mun naa indi saafara eh, ci jafe-jafe mbënd waaye nag eh, bëgg nañu gëstu kopar ya woon milliards ya ñu ne moom la nguurug Macky Sall jotoon a dugal ci mbënd mi te mu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards fukk ak eh, ñaar dañ ko audité dañ ko gëstu Ousmane Sonko moo ni waxee yéen kabi di la mandat mu ngi ñu dektal lu aju ci li nga xamante ne mooy conférence Sonko Mélenchon Mario ndax du jur euh, jafe-jafe ci wàllu euh, politique yéen a bi di critique euh, Mara Idrissa sek mi nga xamante ne booba léegi daanaka kenn déggatu ko ci géeg politique bi gannaaw bu mu ñàkkee élection présidentielle ñu jógee mu ngi ci yéen a bi di critique yéen a bi mu ngi ñuy dégtal Euh, DG bu SAPCO Souleymane Ndiaye ma fa newoon euh, bëgg a mbir ya fu mbaxana doone benn ndax dafa gis ne dañ ko bëggoon a faat ay fanam daal la ñu bëggoon a lem euh, tax na dossier googule teri ji na ca tribunal yéen a kabidi l'info mu ñu dégtal lu aju ci armateur bi di Alioune Thiam ñaawlu na jafe-jafe ya muy dund ca port lu toll ci juróomi liggéeykat juróomi téeméeri liggéeykat yañu ne mun nañoo dem chômage ndax limbu ci bato yamu mu newoon daanaka dañoo am gàllankoor ci jamono jii yéen a di l'évidence mu ngi ñuy dégtal lu aju ci eh, li nga xamante ne eh, nacro trafiquant yi ñay yëngu ci njaayum drogue ak eh, blanchiment d'argent ak bokk na ci xaalis gu jaarul ci yoon ñu bari ci ñoom ci jamono ci ñu ngay dund jafe-jafe yéen a bi ne douane defatina jéego jot naa teg loxo lim bu takku ci xaalis gu baaxul buñ ko xayma toll na ci juróom-ñaari milliards ci suñu koppar yéen a bi moo ñu ko yëggee lépp nag jëm ci xeexum xaalis gu bon gi di faux billets yéen kabi di stade mu ngi ñu euh, dégtal euh, gaynde bu Sénégal Lamine Camara may football ca euh, ci jamono ji Galatasaray ak Juventus ak Chelsea mel ni kenn ku ne maa ngi koy xicco ngir mu mun a wuti club yooyu le mu ngi ci yéen kabi di stade moom la xëyee dan ci dikkat incha na mu gën a yaatoo tënk la woon ci xëtu yéen kaay jaajëfal Adama. kenn dootu leen ko présenté ndax. ku ma sa moom am nga ci satisfaction à 100 pour cent Maulana Cheikh Ousmane Touré nag gannaaw ba mu leen andilee si faawu jooni jooni mbokk yi Cheikh Ousmane Touré andil leen café si faawu jooni jooni di faj 70 maladies ci seen yaram ñu mën cee jàpp hémorroïde bu feeñ wala bu nëbbu tension wala ulcère kuli wala ndoxu siti diabète wala impuissance sexuelle di góor gu néew kàttan day faj rhumatisme ak estomac nee naa la café si faawu jooni jooni bii daal efficace na ndax lu tolloog Ousmane Touré da leen a andil garab gu bees tàq gu ñuy tuddee céréale magique bu sifaawu jooni jooni ah mbokk yi fexe la ñam céréale magique sifaawu jooni jooni bi nag ndax li nekk ci biir nee naa la ñam xam la yow mii di góor day renforcer say miskil yokk sa kàttan may la doole boo dee jigéen mu yokk sa ay ans jox la forme ba nga xam ne foo romb tarkal la rek ngay dégg kon yow mi bëgg a yokk sa ay ans bëgg am forme ba nga xam ne foo romb ñëpp xool la xoolaat la gaawal gaaw jël ci céréale magique ku Cheikh Touré gii nee naa la céréale magique bi nag ñi ko jotee utiliser ñëpp ci gis résultat ndax efficacité bi nga xamante ne bii moo nekk ci biir ah Ousmane Touré nag mi ngi fii ci Tivaouane Pël Kër Massar Apix numéro téléphone am mooy 77 767 57 11 wala 70 485 12 18.